salaamaaleykum mbokk internet dakarnet point com comme ni ñu koy defee saa su nekk di dalal ah, ndaanaan ci suñu plateau ah, tey ñu ngi dalal koo xam ne yaakaar naa ne du kenn du ko présenté fii ci Sénégal ah, muy Doudou Diagne di nekk président des amateurs de lutte te moom lañ dalal duñ def rek lu dul jox kàddu gi mu nuyoog mbokk internet dakarnet yi après di ko moom ci waxtaan. Père ñu leen di di la ziar. lay fay di nuyu waa Dakarnet TV. di leen siyaare di leen nuyu di nuyu képp ku leen seetaan si internet bi di nuyu mbo di nuyu nag suñu mbokk immigré yi vraiment nga am ñu ngi bitim réew ñu ngi leen di ñaanal yàlla ubbil leen xéwal ñu nekk si jàmm di nuyu ñu feebar nekk yàlla wéral leen di nuyu ñu génn euh, ñi nga xam ne tey ñoo am ay mbokk yu génn àdduna ñu mel ni ñoom Balla Gaye ak Sa Thiès ñu ngi leen jaale seen papa Double Less ak mboolem jurit di ko jaale it euh, Mbaye Guèye ak njabootam di ko jaale ñëpp di jaale président CNG Doudou Wales di ko jaale ministre des sports Matar Ba di ko jaale ñëpp di ko jaale njabootu làmb di nuyu njabootu làmb di nuyu ménager yi di nuyu promoteurs yi di nuyu ñëpp képp koo xam ne daal yaa ngi si làmb ñu ngi lay ñaanal yàlla may na wér gu yaram sutura ak mbëri mbëri surtout ak les promoteurs ñu ngi leen di ñaanal ñu nekk si jàmm yàlla defal leen jàmm amateur yi aussi am yàlla ubbil leen wërsëg bu bari bu ñu demee làmb dimbali seen njaboot dimbali ñëpp ñu ñaanal tout les commerçants amateurs uude yeeg koo xam ne lépp looy liggéey rek yàlla si yàlla defal jàmm. alors mu noonu kooku mooy du jànjee ko nekk président des amateurs de lutte euh, alors duñ defee du dugg waxtaan ak moom euh, euh, bëgg nañoo xam sa jaar-jaar tey. Ah, nan nga def ba tey nga nekk président des amateurs parce que tur boobu yombul kon ki nga ko tuddee rek kon am na fu mu jaar lu bari est ce que mën nga ñëw dikkalaatal tuuti sa jaar jaar. waaw li ma nekk bi may xale ba léegi damay seetaan làmb bale naa ñuy bind sama tour bëri naa ba avant làmb li commencé donc bu di dem ba mun a fay billet cent franc dem ba mun a fay deux cent trois cent cinq cent mille cinq mille dix mille donc loolu sant yàlla la naa donc euh, loolu yëpp yàlla dimbali na ma si. donc euh, bu ñu toogee nag suñu pàpp yi fi nekkoon ñoom góor gi Ibra Diop Baye Malick Niang yàlla na ko yàlla yërëm Mamadou seen yàlla na ko yàlla yërëm ak Baye Moussa Thiam yàlla leen fi yàlla saxal ak góor gi Mbaye Thiam ak góor gi Mamadou Sarr ak ki nga xam mooy Saliou Seck bëgg a jàmm maam góor Fall Mbaye Ndoye Wakaam góor gi Cheikh Ñing yàlla na ko yàlla yërëm ñooñu ñoo fi nekkoon ah xam ne léegi ay mag lañu ñu bëgg a jox xale yi man ma nekk candidat ñu voteel ma waaw ay élection lañ demoon stade Iba Mar lañ ko defee si INSEPS ba yàlla jox ñu fal ma 2002 ma jiite amateur yi ba 2007 ñu defaat assemblée générale ñu falaat ma ba 2012 ma bàyyi après Cheikh Sarr ñëw après Cheikh Sarr amateur yi woowaat ma. pour ma nekkaat président amical des amateurs amical des amateurs lañ tudd yu si sant yàlla ma siy sant yàlla lool. xam nga nit ki moom yaay liggéey li nga mën a liggéey rek keneen ñëw jël loolu rek la xëy na am na fu mu yem amateur gis ne war naa mën a ñëw yokkaat yàlla def ma ko ma may leen ko ma ñëwaat loolu la mais liggéey na fi de yàqu fi dara nag wax dëgg yàlla. jamono ji passé làmb ji ñu ngi ko gisee xam nga mbëri woon bëree bëreewuñu naka nga ko gisee ba ak ban impact lay def ci mbër yi. dañuy gërëm promoteur yi nga xam ñooy génnee seen xaalis di ko dugal si làmb ñu ngi leen di di leen encourager mais Covid bi mooy indi coow li nga bee passé Siteu waroon nañu bëre ñu arrêté ko ndax Covid bi itam ñu war a bëre 48 ñu arrêté ko ndax Covid bi donc loolu aussi il faut nit ñi xam ko Covid bi rek la mais boobu Covid bi jeexee te comme président CNG nee na le premier làmb dina ubbi ça veut làmb dina ubbi mbër yi combat yi ñu xool. ay mesures yu état bi jox ñu xool ni ñuy bëri loolu mooy yoon mais làmb moom taxaw vraiment day euh, réew mi day perte économique bu bëri lay perte waaw day indi pauvreté bu mag sax parce que làmb ni muy dundal dafa fort mbërki dem maa ngi gis ne wax nañ ne làmb jamono ji xiif bi dafa bëri xiif bu bëree rek làmbal moo ko indi bu làmb doon bëree xiif du am waaw bu ñu ne dafa bari maanaam xëy na kii mais lamb moom tànk mu ngi dox parce que xaalisu làmb day dem fu nekk mbëri dañuy may seen mbokk yi sëriñ si ñuy uti yeneen dëkk yi sëriñ soosu tamit am ay nit ñuy dundal. jaaykat yeeg jaaykat yeeg ñëppay dundal dafa baax quoi waaw loolu dafa baax. président CNG dégg naa mu ne làmb bi ci bëgg a def gant pour gars yi bëri naka nga ko gisee. waaw loolu moom euh, ñun wax nañ suñu xalaat mbër ki dem si journal bi mu ñu wooye xam nga dañuy wax ne làmb dóor yi mun na gaañ nit même box dañuy sol gant dañuy dóor nit mu dee wala ñu dóor nit mu gaañ. kon làmb ñun suñu cosaan la nii lañ ko bëggee nii lañ bëree ba agsi fii kon nañ bàyyi culture làmb ni mu mel làmb jarul gant waaw parce que gant da koy sol tamit dóor nit mu gaañu wala du nga dóor nit mu dee loolu du dara léegi nag nañu bàyyi suñu gants yi te ñu te gën a renforcer bëre bi. waaye ma ne dañ ne woon gants yi sax da ngay def ni euh, gant bi fii lay nekk baaraam yi la ñuy bàyyi mais yooyu yëpp wóorul parce que baaraam yi ñooy dóor waaw te buñ la dóoree fii mën nga gaañu. kon loolu jar ko ay gaan daal sa waay ñun xamuñu gaan bëri la ñu xam ñu bàyyi ñu bëri bàyyi suñu cosaan ni mu mel. Ama Balde ak Modou Lo Ama gis naa ne mu ngi woon Bordeaux gis naa benn kii bu muy entraîné Modou Lo mbër kaamil la macha allah mais Ama tamit mbër day màgg daan waaw xale la jóg na pour ñëw fekk si Modou Lo donc comme Modou Lo c'est le roi des arènes Ama tey roi bi Pikine la jóge xëy na bëgg na ko delloo Pikine. bëre bu metti lay doon. bëre bu neex macha allah yal na si yàlla yóbbu jàmm. Ama day xeex day lalli day bëre Modou day xeex day lalli day bëre te Modou mbër man xeex la macha allah Ama tamit gis nañ xeexam kon nag moom xeexu mbedd lay def. avantage su mooy mu teey respecté moodu jox ko cëram léewtoog moom xaar lan lay indi Modou tamit. doomu mbër lay bëreel Falaay Baldé ko jur muy champion Kaamil bàyyam yàlla na ko yàlla yërëm Modou tamit na xool xale bi respecté ko combat boobu loo ko xam ne ku xeeb sa morom mu daan la jël bu rëy maa maa la ko wax dañ joxante cër ko si xeeb sa morom dina la duma dina la daan jël bu rëy man maa la wax loolu. Bombardier Balla Gaye Bombardier ba euh, moo daanoon Balla Gaye combat revanche la Balla Gaye moo warul may dara Bombardier donc yooyu yokku waxu yàq sa xel la rek daan na ko daal daan na ko man daal du ma fi nekk naan dafa feebar mu dëgg yàlla daan na ko daan na na fas jom moom it ñëw daan ko Siteu Papa Sow combat bu yàgg la woon dafa yàgg Papa Sow moom ak Siteu may na ko sens Siteu tamit xale bu am mbooloo la macha allah xale bu mun bëri la bu am ful nekk nekk Langsar Papa Sow léegi ubbi écrém donc kon combat bu métti lay doon ñoom ñaar yëpp si defet la ñuy jóge donc combat la bu neex te grand contre petit la ah grand bi daal xaw ma ndax day day oyof petit bi daan ko wala petit bi day ñëw lijjanti grand bi yóbbu ko retraite bërëb bu neex na de macha allah. waaw ah, duñ def rek lu du duggaat fenn yaakaar naa ni père ko xam-xam ko léegi ah, ci politique bi ñu koy laaj naka la ko gisee ak élection yi di ñëw. waaw politique bi de ah, gis nañ ne opposition bi ñu ngi boole di def ay coalition tey nga dégg kii démissionné na suba nga dégg démissionné na bon ñu ngi coow daal. bon gis nañ tamit état bi aussi moom tamit mu ngi am disposition di xool ñu muy teg si yenn gox yeeg ndëkk yi donc Benno Yaakaar la ñoom it coalition lañ def donc seen seen kilifa mooy mag Sall bu waxee ne nii ngeen di def ñoom ñu doog xam seen liste mais li ma si gis rek mooy nañ nit ñi am jàmm xam ne euh, vote bi da ngay gañe mbaa ñu gañe la bu ñu la gañee rek nga xam ne gañe nañ la bu jarul xeex jarul xuloo may ñaan nag képp kuy mbër bu la kenn jël comme comme nervi di la jox xaalis ngay xeex wala ngay def leen toogal sa kër politicien bi soxlaam la xam si yow bu paree si yow fàtte na la waaw ku si nekk na nga am kóllëre fonk sa bopp politicien bu la soxlaa leen rek nga ko mun defal mooy voteel ko wala taxaw campagneel ko pour ñu voteel ko mais bu ko xeexloo bu ko xoolool bu ko xeexal bu ko defal leen bul jël jaasi naan da ngay rey nit wala nga ne bu ëllëgee yow yaay sonn waaw coow li c'est normal mu bari parce que xam nga tey Bamba Fall mooy meeru Medina yàgg na fa tey am na ku jénn ku ñuy wax Cheikh euh, Cheikh Ba Seydou Gueye moo fa nekkoon tey Cheikh Ba ñëw na bon yeneen candidat ngi ñëw Medina dina bëri candidat xam mm-hmm. vote bu seere doon parce que candidat yi dañoo bëri mm-hmm. te xamante nañu te population yi bëgg nañ ñenn ñi donc moo tax nag ku góorgóorlu teel a jóg. il faut nga teel a jóg ànd ak say mbokk dugg si kër yi wax ak nit def ko moo gën waaye booy toog fee naan maa ngi xaar man wala wóolu sa bopp ne mën nga gañe a ah sono di nga di nga de ay caaxaan de affaire bi teel a jóg la ak dugg si kër yi waaye booy toog sa kër naan man maa fi man damay gañe wala nga am sëriñ bu lay ngemb mu naan la yow amoo benn problème jek nga sëriñ ak jekk nga nii di indi sa bopp problème bu rëy lii mbir mi daal. mooy dem si askan bi même luñ la ñaanal ñaanal demoo si askan bi doo dem askan bi ñooy voté ay jinne voté wuñu maa ngi nuyu Dakar Net di leen nuyu di leen ziyaare di nuyu képp ku leen di seetaan di ñaanal réew mi jàmm ñaan yàlla jëlee fi mbas bi ci darajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nañu yàlla may wér yaram may ñu gudd fan ñu ngi nuyu ñëpp di def di ñaanal ñëpp jàmm wasalaam jërëjëf. waaw mbokk internetu ah, dakar net point comme tey lii la leen andiloon ah, yaakaar naa ni tey jii ah, li leen andi neex na leen parce que ñu bari ñu ngi doon laaj fan la fan la président des amateurs de lutte nekk tey ñu fekk si ko fii moom aussi di ko gërëm parce que facilité bi mu defaral dañ ko woo rek mu wooñ nañu ñëw leen yaakaar naa loolu yombu ci kilifa gu mel ni moom di gërëm nag sama cadreur bi jéey ak sama chauffeur bi jaaji di leen wax ëllëg ak keneen allah jaajëf